ndax man damay dox ci boobu catégorie ci ñi nangu ni sëriñ Touba kenn la danoo nekk ci réew mu naqare waxe nekk ci réew moo xam ne li ëpp danoo defarul ci xol ndax ku defaru ci xol doo iñaane may bi yàlla ca kam ko may Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dafa tontu ci li nga laaj ni mm-hmm. boo demee ci xasida gu rafet gu mu woy Serigne Touba mm-hmm. tudde ko alaaha lii xamarun min naxwi tuubaana ca biir dafa wax ni yaa xaasidiina imaaman naasi aamatahum mootoo bi xaysikumoo raxman wa xusraana ñu ne ko lu tax mu ne fa inna qudrata rabbi ratabathu imaaman mustaqiman ay loolu mooy li nga laaj yaa xaasidiina yéen ñi iñaane imaaman naas yi ki yàlla def muy njiitu nit ñëpp ñun yi ñu ragal ak di tiit ak di complexé ñeenu gën a xam yàlla dàq na ko jaamu te ragaluñ ci ñoom imaaman la ko wax yaa xaasidiina imaaman naas yi yéen ñi iñaane njiitu nit ñëpp amatuhum génnuma kenn ci nit mu ni mootoo dee leen bi xayzikumoo ak seen mer ak seen naqar dee leen bu ngeen bañ wax ni Sëñ Tuubaa bu ma raxman xusraana ngeen àndaale ak njàqare ak perte ndax sëñ Tuubaa ko noonu perte ñu ne ko lu tax mu ni fa inna qudrata rabbi kàttanu suñu borom gànna wax na ko léegi juróom benn ponk mooy tax sa ngëm mat bu ci benn mooyee sa ngëm baaxul comme ñoom ñuy jàngale tawxiid nañu dellu ci loolu juróom benn ponk ay tax nit am ngëm gu mat ba ñu indil ci juróom benneel ba tëje ko ko mooy gëm ndogalu yàlla bu neex ak bu naqari sëñ Cheikh Gaynde Fatma ni fa inna qudrata rabbi ndogalu sunu borom yàlla mi nu sàkk ndogalam ratabathu imaaman mustaqiman rafian ay sumakaana ndogalu yàlla ku mënta poñe yàlla mënoo dara ci sëñ Touba ni ko yàlla de mu ni ndogalu yàlla ak kattanam moo jiital sëriñ Touba mu nekk imaamu ñëpp gën leen a jub ñoom ñëpp ëpp leen ay dara gën leen a yëkkatu fu mu feeñe kooku duñu ko ragal yàlla sëriñ Ahmadou Diaw Paxa gënuñu koo xam yàlla gënuñu koo ragal kenn rawu ko lettre bu mu mës bind bu koy signé danaan min Ahmadou Diaw Paxa laanallaahu man wabaqa mirafatul xaarisiin sultaanul aarisiin maliku nuxaat wa luxawiyin ci la jànge yam mbind maa ngi bàyyi ci sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa yàlla rëbb na képp ku ko bañ Ahmadou Diaw Paxaay kan mu joxe ay sifaatam mooy kat mu ni mooy ki nga xam ni koog bi gaa yi naane ci géeju yàlla yépp moo leen di jox koog bi ñuy naan man la kuy naan ci géeju yàlla maa lay tànkal man Ahmadu Jaw Bax yow yaay kan mu ni malikul luxaat ñi xam grammaire les grammairiens loolu lañ koy waxee defe naa suñu ancien président Senghor mooy ki njëkk a agrégé en grammaire française en 1935 ci arabe les grammairiens mooy am luxaat mu ni nag maay maliku nuxaab je suis le roi des grammairiens bu grammairiens yëpp taxawee ñu xam naxwu maay seen njiit man Ahmadou Diaw Ba wa lugawiyiin ak ñi xam luga ko xam vocabulaire bi yeboo nga commencé muxtarul adab jàng ibnu duraydi ba plafonné ci maqamatul xariiri nee na maay sa njiit kooku buy wax ak sëñ Tuuba déglu li mu wax dani mun jidu nal fardul lësi laa walaa yujmau wala yusanna wa siwaahu yujmau kama yusanna nee na ki nu yàlla booleel na yaakaar ko nunu di Cheikh Ahmadou Bamba moom rek mooy koo xam ni kenn du ko dugal ci catégorie bokkul ci benn groupe laa yujmau la wax wala yusanna kenn du ko wutal deuxième sëñ Tuubaa amul deux loolu la sëñ Ahmadou Diaw Pakha wax nga dem ci sëñ Ibrahima Diop al-Masari radiyallahu anhu wax naa ne ñuy coow ci pénc mi bëgg bari wax lool di weranteeke di raddu ku ci dem ma jox la diwaanam soo ko firee ma neexal la kenn du ko firi ñu ngi fii jàngkatu arab yi nanu ñëw ma jox leen diwaanu sëñ Ibrahima al almashari fa mu tàmbalee ba fi mu yem ay junniy bayit duñ ko firi seen arab eggul foofu ndax di nga dem jàng ba jeexal mun jiit xam lépp fekk baat bu sang boobu bind doo ko fekk ci mun jiit te mun jiit mooy suñu dellukaay ci dictionnaire léeg-léeg mu bind baat bu ci amul ndax déggam làkk baatu ajju lim bu takk boo xam ne benn bokkeeg sama morom piriñ baatu diin indi na ci yoo xam ne ñii xamuñu ko benn bokkeeg sama morom piriñ te moo koy bind sëñ Ibrahima Diop almashari dafa wax ni sëñ Tuubaa kenn la mu ne yow mi yàlla baaxee ba nga xam loolu nee na bul complexe la wax wala bul complexe bu ragal li tafdilihi sarix wala taxza munkaran ñu ne ko lu tax mu ni fal asyaau saf un kulluhum wa witru li tafdilihi sarih wala tahza munkaran fa lil munkirina la yaqumu dalilu Ibrahima Diop Masar ne am li tafdilihi gën gi sëñ bi gën ñëpp mu ni sarih feeñal ko laa tax sa bu ragal munkaran ko la weddi nekk xam nañ dinañ ñu weddi mais bul fàtte faale ko la weddi ku raw ñu weddi la laa tax sa munkaran mu ne ko lu tax mu ni falil munkirina weddikat yi laa yaqumu dalilu tegtal boo indi ñu bañ ki xas bañ moom mënoo koo fexe ba convaincre ko loo indi mu ne maa lànk bu ko déglu te yow gëmal mu ni jiitu gi sëriñ Tuubaa jiitu ñu ni ko waaw mu ni sarix na ko feeñal laa tax sa mun karan bul ci ragal ko la weddi ñu ne ko lu tax mu ni fal asiyaaxu sang sépp ak sëriñ si saf on koo ci gis peer la xam nga luy peer mooy am nga deuxième bu mel ne yow waxoo kii di sëñ Bàmba al witru mooy ki tóol kenn mënut di sëriñ Tuubaa Ibrahima Diop Masara Bint ñu ne ma kon ku bëgg a nooy def mu ni fattan in xakamta annahu fardu asrihi fa anta isan yaa saahibi xaakimun adal fattan xattu lam yasmax zamanun bi mislihi walaw kasurat xiilul xulaati wa qaaluha jàngkat yi yëbbuñu sëñ Ibrahima Diop Masar neen sëñ Tuubaa fattan jëmm la joo xam ni in xakamta soo dee atte ku xam nga Sénégal problème bi nu am ñun tubaab yi rawee nañ ñu lu bari te du leen gaaw a jot tubaab day nekk sa noon sax am franchise intellectuelle gis ci yow sa doole mu wax ko ci lépp am na ci waxoon naa fii ci ab tele li ma leen 1956 ba 2010 tous les ballons d'or européens caaxaan yi sax dañuy indi nit ni yaa ci man ndax dañoo am franchise diwa man boo nee football nu ni diwa man boo nee lamb nu ni diwa man boo nee woy sax nu la am na ko dàqoon a woy ciy jamono lu ne ñu wutal ko ko boo dee wax lu jëm ci yàlla ñu ne du doon nangu nga ni Serigne Touba kenn la yaa problème dana amul française mu wax nag nii jiitu gi Cheikh Ahmadou Bamba jiitu ñu ni ko waaw mu ni bul ci complexe wax ko mu ni ndax ku dul Serigne Touba am nga ko mel ni yow fi mu ne koo tagg ku dul Sëñ Touba di nga gis ko mel ni moom. sëñ Tuubaa rek nga mën a lijjanti aspect boo jël ñu wax dëgg yàlla sëriñ bi kenn la te ñuy bañ sëriñ bi kenn la neex naa dégg sa biir kër gi sax man ngaa jékki-jékki ni sa doom ji dëgg dëgg yow daal sama njaboot kenn nga ci rek yow nga nangu ko ci say doom dañoo war a bañ a jaawale kenn ku yàlla ak kenn ku jaamam c'est ça le problème yàlla kennam gi xam na nañu ko ñu duñu ay jaahil jàng sëñ Tuubaa nu ko jàngal ci mawaahibul quddus jàng nañu téere yi ba koy jàngale comme ñoom danoo nangu ndogalu yàlla ni sëriñ bi amut moroom mu libéré sunu lépp bakoog Cheikh Ahmadou Bamba mu féete nu fu kenn mënut nii tax nu koy kennal sëriñ Touba kenn la sëriñ Hamidoun mag ñi doon wax ni sëriñ Touba kenn la ak ñi nekkoon ci ronam dinaa ñëw thématique bi nga xam ne ni mooy bind bi logiquement waaw ah, loolu day indi kenn sëñ Touba fi mu ne mbind mbind yarant bi moo wax nekk na xikma bu rëy ci biir mbind waaye ñooy maanaam kenn Serigne Touba waa Mauritanie ñoo ne ko yow mosunoo gis ci kuy binde style bi ngay binde ci mbind xam nga su ma nee Sénégal coow li bari ndax fi mu ne lu mu rafet rafet may wax ku ñàkk ki ñaan la mu seeral sëñ bi bu subaanu attaqué ma man da ngaa tudd sama sëriñ léegi dama naan fi ñukk Sénégal dem Mauritanie ah ahmadou dalili ahmadou mouhamadul fadal ahmadou dalili ibnu mouhamadul fadal al yanqo bi gànnaar la dem moom dafay wax ci Serigne Touba aspect bi Serigne bi binde mu wax ni nun naar yi nun arab yi grammaire arab ñun ñoo ko moom te muy dëgg kenn mësta ñemee jàng ba sóoru leen parce que ñi daan jàng fii ñu leen di coow dañuy dem ci réewi arab ya jàng ci ñoom pour dolli ko ci xam-xam fi mu ne fii ñi dégg français ci senegal lu ñu aay aay dañuy dem dolli ci français ya am déet ñun ñëpp jaar nañ ci programme bi dañ lay jàngal Molière Stéphane Mallarmé euh, Charles Baudelaire ngay jàng seeni poème ba dégg tubaab ñu lay wax figure de euh, figure rhétorique di wax figure de style yi am di la wax xeeti bindi ni hémistice coupure dégg alexandrin neuvain ngay jàng ba jéeju ci xeeti bind yi am yépp te ci ñoom nga koy copier ñu door a wax ni yow dégg nga tubaab dé d'accord waaw léegi kon arabe yi tamit kuñ ci bëgg naw faaw nga dem ci seen programme ñu jaarale seen université jàngale seen programme ba nga géeju seen barnaamik mu ni kii dafa bari xam-xam léegi nag kii di wax ci sëriñ Touba di seere moom yàlla dogal na du sénégalais d'abord doon sénégalais ñu ni par parlool ajuwul ci tariqa bi dafa nangu li yàlla dogal ci Serigne Touba mu xool mbindum Serigne Touba mu ne ko grammaire arabe ñun arabe yi ñoo ko moomoon ndax ñun ñoo ko nam boo vocabulaire arabe mooy baat bu ne nga xam li muy firi ñun ñoo ko moom ndax ñun ñoo ko nam tabe générosité man a joxe ñun arabe yi lañ ci doon naw dañuy yulli suñ lépp joxe ko mu ne waaye yàlla ci dogalam yi dogal na mu indi jenn jëmm ju tudd Cheikh Ahmadou Bamba ñii la ko waxee dama koy indi bayti arab yi dañu annahwu mooy grammaire wal lughatu ilmul arabi wal joodu wa indal kurabi siimatuhum fa jaahum zu rutabi ahmadu bamba man ala bi rutabi najlu habibillahi zu taaddubi fa salabal jamia aya salabi fa saaru maahu kalqusubi ila asiratu nabil anjabi ahmada bamba ya aqa taqarrubi afa yaxilu laka zulmul arabi bi axzi nahwi im wa axzi l adabi wa axzi juudihim bi xayri wadabi loolu Sénégal waxu ko wax naa leen tur wi boo demee ci diwaan yi fekk ko fa moo ni grammaire arabe ñun ñoo ko moomoon générosité tabe di joxe ñoo ko moomoon ci jamonoy tartar ñuy joxe arabe lañ ko xameloon dégg grammaire ba jaaxal sa jamono arabe lañ ko xamee woon dégg làmmeñu arab ba jaaxal ci moom lañ ko xamee woon am ku bàyyi ko ci sunu borom yàlla yebal ko mu fekk nu ci sunu làmmeñu bopp nangu sunu grammaire boobu ci sunu loxo nangu sunu vocabulaire ci sunu loxo nangu sunu tabe di defar góor yàlla yu kenn mënta defar ci sunu loxo nangu baax ci sunu loxo ñun ñépp ñu mujj topp ci ginnaawam nekk ay toppit di ko topp ñu ni ba mu des yanantu yàlla muhammad moom rek la fi bàyyi ndax da ko wormaal daal ni ko nag yow ahmadu bamba ndax dafa yell ci yow tooñ mel ni sëriñ bi da koo laaj lu ma leen tooñe mu ne ko tooñ mooy fekk nit ki li mu nàmp màgg ci ñu yar ko ci nga gën ko koo man ba muy wëlbati ko jëla ci yow Ahmadou Bamba tooñ nga nangu nga suñu lépp ñu lay topp di la roy ci xeetu mbind koo tagg lu mu rëy rëy am na fànn bu mu bàyyi sëriñ bi lañu xam ci ku boole funuun yépp ci xam-xam te sëñ Ibrahima ma Masar dafa wax loolu ci mbindam danay xam-xam sëñ Tuubaa rek dani ko fa lillaahi ilmun min ka lam yaxwi man madaw wa man xaana aw yaati min ahlil maarifi nee na tudd naa yàlla sama borom mi ma sàkk man Ibrahima Diop Masar ñu ne ko looy wax mu ne yow sëñ Touba fa lillaahi ilmun min ka xam-xam bi jóge ci yow lam yax wi man ma baw ñi weesu woon ci jamono kenn mësta am xam-xamu sëñ Touba waxuma sëñ Touba ku sëñ bi teg ci kipaaram rek ci benn gendi ko mu jox la xam-xam boo xam dalay topp maa ngi fàttaliku bi ñuy xalal ñun ci géejawaay am na góor gu baax gu ñu dëkkaloon góorug joolaa wallaahi alazim waa géejawaay mën nañ maa seet dafa laa yaroo góorug joolaa joo xam ni Baay Faal ñépp ko ragaloon yàlla may ko xam-xam ku jinde jàpp lu mu doon boo ñëwee faj ko ci benn gendiku dañ ko daan rang bis moo ni ñu xam-xam bi xam nga du ma toppee ñu ni ko déedéet maam mu ni bi may xaleel damaa mësa yaram bi tàng rek sama baay fab ma yóbbul ma sëriñ Touba ci njaarim fab gu ma fab teg ma ci poojam yàlla jox ma xeeti xam-xam yépp may faj kooku jàngalewul foofa koo xam ne boo fobee jëmm mu mel noonu kon sëñ Ibrahima Diop ma sax ni ko xam-xam bi ci yow nga fi jaaroon ñu leen di coow amuñu ko kenn seenu ñu nga bokkal ci jamono ji kenn seenu la ci xam-xam sa ginnaaw kenn du mel ni yow ci xam-xam demal bibliothèque u Tuuba mu bind nag ci grammaire a naxu saadatu tulaab ñépp a ko xam te doo doo doo nekk n'importe kii pour jàng ko da ngay jaar ci téere yi nu mii noonu demal nga jàng muxaddamatul kokki demal nga jàng al ajrumi demal nga jàng mil atul demal nga jàng yooyu ba pare ba jàpp ne yow am nga xam-xam boo ñëwee sëñ Tuubaa di la jàngalaat ci forme boo xam ni académique di la ko jàngalaat la grammaire ba pare li gën a garaaw ci grammaire sëñ Hamidou mooy di la jàngal grammaire te koy defaale nazmu woy dafa am ci arab lu ñuy wax nasru ak nazmu lii mooy li ñuy wax prose lii mooy li ñuy wax versification sëriñ bi nag da ngay ñëw ci saadatu tulaab mu lay jàngal grammaire te koy woyaale musu taam sëñ Bàmba la ñu xam ci ko moom nga dem ci siira mu bind ci nga dem ci joxraaf mu bind ci nga dem ci ilmu nujuum mu bind ci nga dem ci manti xaadim rasul bind ci nga dem ci bayaan sëñ bi bind na ci nga dem ci fiq lim ci bind kenn mënu ko jeexal nga dem ci matxu mu taggee yarantu bi ni ko kenn mësta tagge warmaale ko ni ko kenn mësta warmaale amit lu kenn mësta am lii moo tax ñu naan Serigne Touba kenn la ci bind Brésil le Brésil fait cent fois le Sénégal géographiquement parlant le Brésil fait cent fois le Sénégal ki Brésil jox raa yow mën a bind ba kenn du la séen yow mu ngi tudd Jorge Amado Jorge Amado brésilien yépp ko xam te naw boo xoolee li mu bind ci giiru dundam gépp gépp bind ko mënta egg bu baree ba bari 100 kilos mënu ko egg ndax ko si woon rek du mat 100 kilos mënta ne nga dem Argentine ka bind ba jaaxal ñëpp Jorge Luis Borges la tudd bokk na ci ñi ñu jox euh, prix Nobel de la littérature muy raaya wuñ leen takkal depuis 1901 avec Sully Prud'homme ba fii may waxe man naa laa limal 1901 ba fi mu toll kooka lañ ko jox gudd na fan amee na teraanga yépp ci bind boo sëfee la bind lépp kooka àggul 100 kilo nga dem biir Espagne Espagne du moroomu senegal ci rëyaay ñu jaaxle ba ci la génération del 98 dama la ñuy wax la génération 98 en 1898 génération boo xam ni seen mbind dañoo nangu xalima jaaxal képp kuy doomu Espagne ci diggante Pío Baroja Jorge Luis Borges euh, Federico Garcia Lorca euh, ku ñuy wax Unamuno ku ñuy wax Azorín ku ñuy wax Pablo Neruda doomu Chili la ñoom ñëpp bi nu dajee bu ma leen boole woon seen groupe ñoom ñëpp kenn du ci am 200 kilos nga dem France Victor Hugo dee na 1885 ñu indi ko ci Panthéon bi ci lañ ko suul Victor Hugo doomu France bu ne xam na ko di ko symboliser di ko màggal di ko rendre hommage bi mu deewee en 1885 dañ ko indi ci Panthéon bi ni ku njara màggal la parce que ni mu bindee ci dramaturge la woon romancier la woon nekkoon na dégg nga poète nekkoon na philosophe il il a il a été itam député en France Victor Hugo ni ñu ko màggale ci bindkat musta am ci France boo sëfoon li mu bind lépp te moo ci ëpp bind moom ko ñuy wax Honoré de Balzac li ñu bind lépp mënta egg ci benn ton boo leen woon ñoom ñaar nga dem dëkk bu mel ni Allemagne ñu koy def góot góot li ñu bind lépp eggul 200 kilos nga dem dëkk bu ñuy wax Inde ñu koy wax jiddu Krishnamurti li ñu bind eggul 200 kilos nga dem ci réewi arab yi lu bind ci làmmeñu arab imam Shafii radiyallahu anhu jaaxaloon ñëpp ñu ne mbind mën naa toll benn téere par bis ndax bari Cheikh Mahamadul Bachir moo ni sunu yaakaar Serigne Touba lim daan bind ci benn bis juróom ñar fukki kàng fóore yu gaaw loxo te mokkal buñ daje woon di ko bind ci weer duñ ko man mu bind loo xam ne tam lii preuve bi mooy sëñ Gànda wax na ko léegi ku dul Serigne Touba mën nañoo lim sa mbind mu jeex ah dañ koy lim ku dul Serigne Touba mën nañ ni lii la bind ci fànn yi jeex na ñun ñii di ci waxtaan fu nu toll yi gëstu am na mbind mun mënta am te ban yi dee nag. njabootu sëñ Touba gi léeg-léeg nga jox kii xasida mu ne ah lii sëñ bee ko bindoon lii yéeme na di Serigne Diop xamu ko te sëñ Touba ko bind te fànn yépp ci la bindee bind ci style boo xam saam wax naa ko benn xale ci université Cheikh Anta Diop boo xam ni département araab la nekk mu may jaayi arabe ma ne ko booy déggoo arabe parce que yéen ñi jaar ci programme bii rek jaaru leen ci majalis xamu leen dara ba mu ñëwee ma jox ko asinu mu'jama wal kaafu wal wa huwa war raau bu sëñ Touba ma ne ko firil ma li mu xool naan ma mais lii bind lu mu bëgg a wax ma ne ko mu ngi xamoo dara ki nga xam ne yow jekku na làmmiñu yaaram ba ci araf yi lay bind li ñuy wax a siinu mu'jama nga xam ne siin su am ñetti tomb la wal kaafu ak keef war ak raa muy as sukru muy cant li raa i wal i jox naa ko li raa ak baa muy li rabbi ñel na yàlla woowote moom yàlla al baa u war u mooy al mooy aji baax ci ma koy décortiquer ba mu yàgg mu yuuxu ni ma kii est-ce que lii nit ñi xam nañ ko ma ni ko kii mooy Serigne Touba. fànn bu ne mu jël ci temps am léegi li nga war a poser question mooy nan la doon boole jaamu yàllaam jure ji ñuy wax jaamu yàllaam ji nga xam ni Serigne Mbay Jaxate nee na ku fekkee sa julli bis ak cant war na ko ndax sa genn kàbbar gën julli juróomi junni nan la ko boole te li ñuy ragal wax sëñ Mbay Jaxate wax na ko nee na ba Badiar xëy ni mes jug dugg àll di wéy. di laaja kay wër ba am téeméeri at mi ngi nii njariñ la jar laxasuy raflee ka xiif ak mar ngir bëgg koo jot ba tee faf dab it mi ngi nii noo boole nag biib sëriñ ak lii njariñ ci lu biir te kenn réeru ci ay mbokkam lu màgg a ngi nii dal ni alhamdulilahi ndeem doon naa murit bu dëgg la luy dal ku ànd ak sëriñ Touba ëllëg na ma dal képp ku gis ki ma gis ba noppi seeti leneen demal ma dem ba ma fii fii rek a dal sama xel ak dund moo ma ci doy suul dëddu moom a ci doy bisub bu ñante ba Tuubaa rekk a dal sama xel sëñ Bay Jaxate nee na ku lay def moroom xam na ni këll yaa ko mën lewet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la ku not gaynde not ségg ak mu dàq ñay mu daw du soowoo ki bay noppil téwee yàlla gis ta la sëñ Mouhamadou Gay Jamooy nee na ko yow daal min nii salaamun ka yaaquutin wa bal faaqa durran wa yaquutan wa kalqamari ila allazi saara abdallahi xaadimahu sayqi xiyaasi malaasi man qada watari ki lay wooy ku mu toon mu joxoj sëñ tubaa ni ko nafaxta jiilaka duniyahum wa axiratan jaddatta diinan bila sayfin wala zumari ku dul yow mënta yeesal diine islam bocci woo gobar fay woo ku ñuy wax la non violence ñu ñuy parler de Gandhi Mahatma Gandhi Nelson Mandela sëriñ Touba non violence mësta am ci kaw suuf xam nga man naa xam sax nag nga tooñ ma man nga tooñ ma ma bañ a fayu sax maandu noppi waaye bindaat àgg ci du ma fayu jéggal naa leen te yàlla tax lii sëriñ Touba ko mës a def ci non violence. kan moo mës a liggéey ba àdduna sosoog léegi kenn sëñ Touba gi laa nekk ba tey de ba àdduna amee ak léegi kan ngeen mës a gis ku sañ ci ab dëkk boppam. loolu kenn sosu ko sëñ Touba sanc Touba gii 1888 la ko sanc sanc dëkk boppam fekku fa dara tey mu dem ba pandémie bi tëj àdduna tey ñépp a jaaxle les grandes puissances diggante États-Unis France Allemagne Angleterre sax amaat na yenn juddu ñépp a tiit jaxaso on a fermé toutes les frontières ñépp noppi màggalu màggalam ñëw bisub Sëriñ Tuubaa gi ñu sant yàlla mu dajale 4 millions ñu daje ci dëkkam santale ko yàlla pare zéro kaa am loolu boo ci xoolee xam ne sëñ Tuubaa kenn la li ñuy bañ a wax sëñ Tuubaa kenn la mais sëñ bi kenn la ndax boo nee doomi sëriñ Tuubaa ñun la doomam kenn melul ni doomam soo nee mbindum sëriñ Tuubaa nga ni mësumaa gis mbind mu mel ni mbindu sëriñ Tuubaa soo nee dëkkub sëriñ Tuubaa ñu ni Tuubaa moom genn la fi boo nee sëriñ Tuubaa ni mu bëggee yenant bi ñun la dëgg-dëgg amul ñaar buñ ne sëñ Touba kenn la problème bi am mais sëriñ Touba kenn la loolu la yàlla dogal sëñ Hamidou